Mamadou du Tunkara du duñu la may dara du ñu la may naada da ngay toroxal say gan si sa plateau télévision di leen wax ne amuñu xam-xam di leen xas di leen wax dañoo nax nit ñi te yow yow mii yaa amul xam-xam te wax naa la dinaa continuer di wane say gan yi nga xam ne ñom ñoo la toroxal comme ni ngay toroxalé sa yenen gan yi waxna fi sëñ Sidi Maxtaar wax fi professeur Assane Mbuub bi la wax ne ce livre bi nga bind du livre dara dang ko wara bindat amna benen xale tamit bu ñu wax Ndey Babel so xale bi ñaar fukki at rek la am 20 ans nga inviter ko xale bi di le corriger déjà yow ya ngi nan occupation France 1941 1944 mu ne la dedet 1940 1944 da ba pare yow nga ne ñun Sénégal xeexuñu euh, nasaraan bi xale bi ne la déedéet Cheikh Ahmadou Bamba xeex na euh, nasaraan bi Tunkara loolu boo ko xamul yow waruloo jàngale fii Sénégal xale bi ne la mais Lat Dior Diop xeex na xeex na contre nasaraan mais yow nee nga ñun xeexuñu ñun suñuy indépendance dañu ñëw rek tubaab yi dañu ñëw rek joxuñu ko sur un plateau d'argent maanaam dañu ko tegal ci benn plate plateau wurus wala plateau euh, xaalis xam nga xale bi wax la ne Cheikh Anta Diop ñooñu dañ doon xeex pour Sénégal Tunkara bàyyil di jaay xam-xam te amoo xam-xam yow bu fekkee ne da nga ne professeur nga te histoire Sénégal xamoo ko ngay tuuti Lat Joor di di tuutil Sëñ Bamba ak ak résistants yi ñi nga xam dañoo xeex tey Lat Joor bu dul woon moom ak ñeneen ñi ñoom Aline Sitoé kon kon tubaab bi ba léegi mi ngi fii xam nga léegi nag ñun li ñuy wax rek mooy duñ la may dara dinañu continuer di génn ay vidéo pour wane que yow mi yaa amul xam-xam. lien bi dinaa leen ko teg ngeen xoolal leen seen bopp xool leen xale bii ah France la dëkk mais moo gën a xam mu ngi naan euh, Tunkara yow xanaa xamoo Lat Joor xam nga Lat Joor xam nga lii nag dafa ñaaw ñun dañoo bëgg sa émission nga ci wax loo xam ne dafay jëriñ askan bi. xam nga mais nag li nga amul xam-xam moo tax ngay toroxal nit ñi bu fekkoon da am xam-xam dëgg sa xam-xam boobu di nga di nga fexe ngay def émission yoo xam ne dina jëriñ Sénégal